Euh, di dalal tey kii di journaliste chroniqueur bi euh, di Bakary Domingo Mané analyste politique ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci wuyu gi ñu koy amal nag voilà gannaaw manifestation bi Yewwi Askan Wi amaloon ci place de la nation tey jii ci jàngat ci gis-gis euh, nan nga gisee la fa teewoon. waaw d'abord wax la forme et c'est-à-dire que ah. boo xoolee li xewoon dëmb mun nañu ne ne wàllu ak Yewwi ils ont réussi le pari de la mobilisation. Mm-hmm. parce que nit ñi nga nit ñi sonn foofu. Mm-hmm. vraiment c'est des hommes et des femmes n'est-ce pas déterminés. Mm-hmm. lan moo leen andi ku nekk lu la andi. yaa ko xam dañuy d'ailleurs micro trottoir yi wane na ko am na koo xam ne na jakartaman la mu ne moom euh, lu ko andi mooy les tracasseries des jakartaman avec n'est-ce pas am na koo xam ne dafa ñëw nee na wàllu mbéy mi ah, donc euh, moo ko andi am na koo xam ne nee na dund bu cher bi moo ko andi donc euh, am na koo xam ne daal nee na décision n'est-ce moo ko andi l'un dans l'autre pour man boo xoolee la diversité parce que loolu tamit c'est dans la forme boo xoolee la diversité des personnes ñoo xam ne ñoo ñëwoon foofu da ngay xuwan da ngay gis ne que bii yoon du xale kese ne sax ñoo fa mm. ay mag la ñoo ñëw euh, am na benn jigéen boo xam ne nee na soixante neuf la juddu kooku am na cinquante mm. donc euh, c'est une femme mûre mais surtout encore dañuy ràññee tamit ay ay retraités donc loolu de wone lan day wone ne que euh, réew mi am na ñoo xam ne ñu bare ne sax kontaan nañu mm. ko doxalee. donc loolu la ñu wane dem ba mobilisation bi loolu la wane dem ba ku nekk da nga ñëw avec ta propre raison te raison yooyu yëpp dañuy converger converger si kan ci Yewwi nest ak wàllu koo xam ne la seen euh, coalition yooyu moom moom la ñu moom moom la ñu sénégalais yi n'est-ce pour que vraiment ñu wutu ñu fi nekk. ñu dugg ci kàddu yi ku ci nekk yëkkati nga say kàddu jëmale ko ca ña adopté woon euh, tey contenu bi justement noo ko jàngatee. xam nga contenu boo ko xoolee euh, discours da nga koy da nga koy placé si mm. euh, contexte bi moom mooy lan que conseil constitutionnel dafa enterine la décision de Félix Antoine jom mm. boo xam ne dafa rejeté. n'est-ce pas liste Yewwi rejeté tamit liste disons disons Benno Bokk Yaakaar boo xam ne daal voilà donc contexte bi ñi nit ñi surtout ñu mu ñu liste nationale bi mm. ay kàngam opposition yi la ay ñoom Ousmane Sonko ay ñoom Aïda Mbodj ay ñoom euh, ak ñoom seen donc ñoo ñëpp euh, du ñu mën dem assemblée nationale même su fekkee vraiment élection am nañu au mois de juillet trente et un juillet mm. du ñu dem mm. parce que dañ leen beddi donc loolu euh, dafa wone que discours bi dafa nekk un discours batanguère c'est-à-dire que koo xam ne daal euh, dañuy jël décision boo xam ne d'accord ko eh, te yow da nga ne euh, vraiment dañ lay dañ dañ dañ jël décision boo xam ne daal euh, dañuy respecter la constitution du Sénégal ou le code électoral mm-hmm. donc discours boo xam ne discours musclé mm-hmm. parce que simplement discours boobu dafa bur woone que le rapport de force aujourd'hui est en faveur de Yewwi Askan Wi ak Wallu parce que ñaar coalition yooyu mooy coalition yu gën a màgg n'est-ce opposition boo leen boole leen nga xam ni daal vraiment force la donc loolu tamit discours bi dafa wone loolu dafa fësal que aujourd'hui le rapport de force yeewu la nest pas ak euh, disons wàllu la. waaye boo gisee bu ñu ku ku ci wax askan wi dañuy jóg ña fa nekkoon jóg yuuxu yëkkateeku euh, ndax dañu leen a jox li ñu bëgg a dégg. comme ni nga koy waxee seen discours bi dëgër na euh, discours va t en la ndax askan bi loolu lañ bëgg a dégg askan bi loolu la bëgg a déggee parce que man dama ne communication politique mhm. euh, boo jësee boo xoolee li ñuy wax les cibles électorales mhm. te cible boobu la principale cible ici c'est les jeunes euh, parce que boo nee la bataille de rue du du du du mag moo koy def xale moo koy def mhm. te xale boobu ñi jàng communication pour dañu ne am na ni ngay wax moom discours bi dafa am beneen tonalité boo daal une tonalité révolutionnaire boo ko defee rek nit ñi dañ lay suivre euh, à tel point que démb boo déggee n'est-ce pas Barthélémy Diaz wax nga dégg Ousmane Sonko wax xale yi vraiment ils étaient surexcités am na ñoo xam ne daal sax dañu bëggoon tout de suite vraiment dans la rue manifester après euh, responsable Yewwi ñoo leen de non non non xaar leen n'est-ce donc xale fu ñu nekk nii ndigal rek la ñu xaar ndigal la ñu xaar parce que pour ñoom pour responsable Yewwi Askan Wi ak wàllu en tout cas liste nationale euh, disons de de Yewwi na dem si élection yi wete donc euh, tollee fii lu ko waral nga jàpp ne ci wàllum ndax gisuñu seen politique euh, jàpp nga ne mag Macky dina mën a tamit euh, defaraat toogaayam juboo ak askan bii nga xam ne moo nekkoon place de l'Obélisque mu mel ni da koo mere. man je pense que boo xoolee nombre de at mu def vraiment si gi ak lu ko dese donc pour man c'est c'est fini c'est c'est cuit mënatul jubóo n'est-ce pas ak jeunesse am parce que euh, euh, les événements de mars dernier vingt et euh, deux mille vingt et un fi lañ jaar donc dañu foogoon en tout cas sénégalais yu bari dañuy foogoon que président de la république jàngat na vraiment li xale yu bëggoon mais malheureusement acte mu posé donc wane na que safaan bi la wane ne donc ça veut dire que pour man le divorce est acté donc entre moom ak jeunesse am vraiment euh, amatul euh, amatul euh, disons vraiment raxatal seen diggante dootul raxatal comme comme comme ah, waaw ratax comme comme la dernière fois mm-hmm. c'est vrai que jéem na à travers n'est-ce pas des stratégies de communication jéem a vraiment mettre au cœur de sa politique n'est-ce les jeunes mm-hmm. mais loolu ça suffit pas je pense que jeunesse bi actuellement lu ñu soxla mooy des actes concrets et malheureusement actes concrets yooyu on s'est rendu compte que c'est juste une infime partie de la jeunesse et puis loolu ñu bokk ci nguur gi ñoo xaawoo euh, disons bénéficier wu vraiment des des des des dividendes mais la majorité ñoom tamit euh, ba léegi seen situation changé wul xale yooyu ñoo bëgg léegi vraiment euh, que yëf yi changé c'est pourquoi ñu mobiliser wu. dem ah ba am na ñoo xam ne daal vraiment lu ñu xaar actuellement ay consigne la parce que ils sont déterminés pour vraiment euh, nguur gi euh, jóge fi pour que ñoom tamit ñu mun a noyyi euh, seen seen seen seen parent mun a noyyi dëkk bi ne soit mun a noyyi. Khalifa Sall ak ñi mu àndal dégg nga leen nee nañu ñoom seen liste titulaire dina bokk ci élection yi ak lu ci mënta am donte conseil constitutionnel joxe na dogal ndax loolu cas figure buy mën a nekk la. waaw cas figure mun na nekk yala y a la loi aussi la politique yoo xam ne daal des choses qui se règlent n'est-ce pas politiquement. Ah. du loi rek moo ko loi mun na ko tëral ensuite euh, euh, politique rapport de force le terrain ñoo dindi ko. loolu gis nañ ko bataille vraiment dans l'histoire politique euh, n'est-ce pas de l'humanité surtout du Sénégal mm. donc loolu je pense que lu mun a nekk la tout dépend vraiment euh, lan la lan euh, naka la ñu comporter n'est-ce pas sur le terrain et lan mooy nekk rapport de force yi parce que boo xoolee au fond vraiment boo jëlee coalition wàllu ak Yewwi nga xam ni la la majorité des Sénégalais foofu lañ nekk donc ñooñu bu ñu génnee wane seen naxar pacifiquement a ah, am na loo xam ne la mën na ko changer ci rapport de force yi te euh, euh, xëy na ñoom lu ñu bëgg mun nañ ko am. tey lan yan élection moo ñuy xaar fu mu nekk nii. oui élection bu ñuy xaar mooy euh, tension tension dina am. parce que euh, te tenant nguur gi ñoom dañuy nekk di wax ne waaye dañu war a respecter conseil constitutionnel parce que euh, décision bu mu jël dafa leen arrangé ñoom yaa ngi dégg le moom dafa leen arrangé. Mhm. parce que en principe yëpp yi bu yoon vraiment du demee nii. mais comme arrangé na leen ñoom dañuy am un discours d'apaisement voilà donc euh, discours d'apaisement boobu pour man euh, du du ça règle pas la question mhm. parce que la question est toujours restée en l'état mooy aujourd'hui Euh, les les les figures de proue de l'opposition mhm. ñu bare du ñu dem à la à la prochaine assemblée nationale te loolu vraiment jeunes euh, yi les militants et les sympathisants bëgguñu loolu c'est pourquoi ñoom dañu bëgg vraiment régler leur compte vraiment sur le terrain Mm-hmm. Maintenant, en face d'eux, les forces de l'ordre vont s'interposer. Maintenant, euh, ñun en tant que Sénégalais lu ñu ñaan lu xewoon fi mars xewati euh, c'est pourquoi dama ne xëy na kilifa yi balaa loolu mun nañu jóg dox tànk jàmm pour que jàmm sax fii mais à la seule condition que élection ñu jëm jàmm euh, xeeñu ci. non jàmm xeeñu ci ça y a rien à parce que euh, yaa ngi digg xale yi ñoom lu ñuy xaar ah. actuellement digal lañu xaar. Ah. te ñu ma gisee mbir mi su fekkee y a pas de solution ba léegi vraiment pour que euh, ñu lu ñu élimi ñu ñu éliminer mun a bokk élection parce que simplement code électoral moo ko moo moo moo leen dox sañ sañ sañ boobu donc bu amule rek pour man de la tension la tension est là et malheureusement c'est les innocents qui parce que euh, lu xewoon mars bugg buggatuñu mu xew bu xewee tamit baaxul n'est-ce réew mi parce que mun na am beneen dayo boo xam ne daal vraiment kenn kenn kenn kenn kenn ñaanu ko donc euh, pour man une fois de plus euh, kilifa réew mi que nekk ñu ki nekk kilifa disons aada wala kilifa nest dison pas disons diine dañu war a jóg sol seen dàll ñu xool vraiment situation man nag dañ mun a régler yaa ngi dégg donc euh, parce que euh, euh, la décision du conseil constitutionnel euh, mënu suñu revenir là-dessus maintenant pour ñoom waa Yewwi ak waa Wallu lu si des lu des fi léegi maintenant c'est le combat de rue donc donc moo tax ma ne la dans les jours à venir dans les semaines à venir dama ñaaw njot ne que ñu joxe consigne boobu et que Sénégal commencé vraiment dans une situation d'impasse boo xam ne la kenn ñaanu ko parce que déjà dund bi cher na nit ñi dañuy tal leneen que ku dul vraiment ay manifestation mais euh, malheureusement dama ragal loolu am alors que euh, euh, responsable religieux wala coutumier mënoon nañu son seen dàll pour que vraiment ñu xool naka la rebattre naka la ñu mën a rebattre les cartes pour que pour moi je reviens à l'esprit de la loi loi électorale waxuñ dañuy simpi nit moom mu bañ a bokk. Mhm. loi bi dafa tëral pour que nit ñi bokk élection sénégalais ñoo war a arbitrer donc loolu bu ñu ko bu ñu bu ñu ko comprendre je pense que ay erreurs yu ndaw wala warul tax nit vraiment euh, ñu éliminer ko n'est-ce pas de la course donc mhm. loolu tamit il faut que ñu revenir si ñu ñu revenir parce que dama dégg ay kàngam euh, des experts euh, électoraux vraiment ñooñu addu si mhm. mais li muy wax ni loolu la ñu wax dañu ne l'esprit de la loi du loolu donc euh, et puis normalement la consi le le le, le code électoral. Mhm. dañ ko war a respecter pour que un climat d' apaisement n'est-ce pas mun a am si dëkk bi. mu am euh, ñu gis ne Yewwi woote na mu am mbooloo mu ko wuy si tey Benno Bokk Yaakaar moom it di woote euh, ndax dayoo manifestation yi dina bokk. non du bokk d' abord xam nga Benno Bokk Yaakaar lu mu bëgg a wone dafa bëgg wone ne que coalition boobu ils sont toujours populaires. Mm. or élection locale yi nu mu démontré ça a démontré ne pas le contraire mm. maanaam la plupart du temps vraiment boo boolee euh, Yewwi ak Wallu vraiment ils sont largement majoritaires loolu moom kenn naata et surtout les grandes villes ont été gagnées n'est-ce pas par Yewwi nit ñi xam nañ ko donc donc euh, ñoom même bu ñu mobiliser Euh, mu am euh, dayo bu mel nii lu euh, xewoon n'est-ce pas obélisque mm-hmm. du du nekk parce que xëy na ñoom lu ñu gis ba léegi parce que am nañu moyen dañuy jël ay car dem jox xaalis nit ñi dem t-shirt nit ñi gars yi ñëw disons manifester mais ñooñu la plupart du temps ce n'est pas des militants de conviction hmm. yaa ngi dégg donc euh, contrairement à euh, à wàllu ak Yewwi ñu ñëwoon fu dem ba parce que dama dégg euh, benn waay bu di ne depuis six heures du matin la fa nekk kooku donc kenn jox ko ko paas hmm. kooku kenn jox ko dara donc dañu ñëw fu la pour la plupart par conviction donc euh, du am beneen benn benn benn moo ñaar ñaar mobilisation du am am beneen beneen dayoo bi mhm, mhm. ngay journaliste gis ne tamit sa su événement yu mel ni amee ne ay journaliste dañuy faral di leen buntu xatal dégg nañ ko tamit euh, ci li xewoon ca place de la nation tey ji euh, ban appel nga ci def. waaw xam nga malheureusement euh, bis répétita du du gulet li am. même depuis nguuru nguuru nguuru Ablaye Wade amoon na fi dañuy attaqué journalistes yi toj seen seen seen matériel euh, malheureusement ak nguuru euh, Macky Sall tamit loolu la ñuy seen mm. euh, dañu ne dans une démocratie dañu war a respecter n'est-ce pas le travail des journalistes. Mm-hmm. moom lu muy def ma day taataan information jox ko askan wi. Mhm. maintenant ku nekk tu es libre vraiment d' interpréter li def mais waroo ko attaquer physiquement. Mhm. waroo saaga parce que dans une démocratie loolu c' est inacceptable c' est pourquoi donc suñu euh, syndicat. Euh, SYNPICS dafa war a taxaw taxawaayam. Parce qu'un syndicat dafa war a défendre les intérêts moraux et matériels, n'est-ce pas, de ses membres. Mmh. Or, les membres ici, ce sont les journalistes, les confrères et les consoeurs. Mmh. Donc, coûte attaquer journalistes, ñu traduire la en justice. Mm. je pense que loolu bu bu ñu ko bu ñu ko defee mm. xëy na les gens vont vont vont laisser parce que en euh, politique yi pour un oui pour un non dañu nekk di attaquer mm. disons euh, disons journalistes yi alors que il se il se il trompe de combat. le journaliste euh, moom dafa nekk disons dans une position médiane nekkul far nekkul di par parlo wala même su fekkee yow tu as l'impression que lu mu wax par parlo la mais tu n'as pas le droit n'est-ce pas disons di ko physiquement loi. Euh, loi may na la sañ-sañ bind n'est-ce pas rédaction bi mhm. pour neel man d'accord ma ak liggéey journaliste loolu tamit euh, loi jox na loolu mhm. mais tu n'as pas le droit di ko attaquer te loolu dafa war a dàq n'est-ce pas si si si réew mi mhm. ah donc que ça soit du côté du tenant des tenants du pouvoir ou bien opposition journaliste kenn war ko attaqué ah, kenn war ko saaga parce que si liggéeyam lay def. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Bakary Domingo Mané. merci merci.